billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi gannaaw ba nu leen nuyoo ziyaar leen ñu ñëwaat ak yéen ci seen uh, bindu tey tey nag ñuy waxtaan ci faat bakkan ni mel ci réew mbokk yi faat bakkan comme niñ ko waxee woon ci bindu démb bi uh, wax ci sàcc noonu la ñuy tam ci faat bakkan yi ëpp na eh, bu jëkk sax da gis bakkan yi daan rot day nekk ci lu dul tayeef lu dul tayeef su ma ko waxee mooy dañuy wax kii ka da doon werante kii wala sax dañ doon xeex wala nangam waaye nag faat bakkan gu laxasu ci caay-caay loolu lu jéggi dayoon lu jéggi dayoon eh, beneen bi ci topp mooy léegi ñi nu gis ñu di ko def day nekk ñoo xam ni dañuy am rapport yu yu yu baax ak famille bi nga xam ni moom la ñuy nekkal gis nañ ki ko fi def chauffeur am gis nañ ki ko fi def de euh, ki fi def euh, kii wam patron wam chauffeur bi nga xam ne moo rente woon patron am fàtte wuñu ko waaye itam koo xam ne itam nit liggéeyloo na la muy ki nekkoon Kër Massar nga wàññeekuwaat mën a ñëwaat def caay-caay waaye itam tey ñu gis koo xam ni ki mu ko def ku ko wóolu woon la bay dekk ak moom te ñi dund ñëpp xam nañ ni léeg-léeg nga am ci nit confiance confiance motax nañuy déglu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam euh, ba muy wax daf ni su fekke jigéen ñi ñu di leen jox nopp léeg-léeg nga and ak nit ngeen di nek sa soxna léeg mu dila wax dara bu ko fenetal dee ko déglu léeg-léeg xale yi nga may leen opportunité ñuy ñuy ñuy dénoncer jikko ku yàqu koo xam ni moom nga àndal ñun ñëpp rek léeg-léeg duñu ko déglu waaye yooyu yu am solo la waaye pour wax la rek lu ñaaw a ñaaw la te gis nga Sénégal Sénégal lépp lu ñëw rek dañuy coow bàyyi mu sedd rom waaye lu ñaaw ba àgg ci ñaaw ñaawteef gi bariwul lu ñu koy gis ñëw gis nit sàkku ko wala jéem ko sàkk ba faat bakkanam àndaat ak sa froid ñëw nekkaat ci kër gi mbokk yi lii lu doya doy waar la te nag lu mat a jóg la peine de mort yi ñuy wax ëpp leen yàlla yërmande gënu leen ko baax gënu leen ko bëgg nit ñi ndax moo leen moom gënu leen bëgg yàlla nit ñi ndax yàlla moo leen bind moom leen kon su gisee solution bi mooy solution pour askan wi dund ci jàmm tey su fekkoon leer na kenn ku nekk ni boo reyee ni dañ lay rey kenn du rey ndax nit dafa bëgg bakkanam en général ku rey nit rek soo càmbaree la xew ba tax mu rey ko da koo wékk ci bakkanam xam nga ni kii doon defuk caay-caay kooku bakkanam la topp bakkanam la topp su ko leeroon ni nag su toppee bakkanam mën ko caa ñàkkee du ko def déedéet kon nanu xam ni lii nga lii tax société dund ci jàmm mooy que ñu xam ni képp ku rey ni dañ laa war a rey ku sàcc dano war a dagg sa loxo te gis nga yooyu buñ demee ba defuñu li muy jur moo ëppati yow gis nga ba tàyyi ku ku ku rey nit ñu tëj ko bàyyi ko mu reyaat nit ñu tëjaat ko bàyyi ko mu reyaat nit am na ci ku ma doon suivre ci internet muy expliquer ah kooku su fekkoon ba mu njëkkee rey atte nanu ko jël bakkanam kom na mu jëlee bakkanu kee du àgg ci keneen waaye xoolal tey sàcc ku sàcc ñu dagg sa loxo ñu ni déedéet loolu dafa diis dafa metti léegi ki sàcc ñu sàkkan ba nu rey ki sàcc ñamu sàcc jël bakkanam yooyu yan àtte ñu ciy juddoo mbokk yi kon dañu xoolaat bu baax li ñuy def yàlla kenn ëpp ko yërmande kenn gënu ko baax mi lépp loo xam ne nag teg na ko pour société jàll société boobu bu nu ko gëmmee dañuy daanu ci ay musiba ak i giraawaale yoo xam ne du am arrêt kenn du xam noo koy arrêté gis nga tey ñu ni soo sàcc bi sàccee na dagg loxoom léegi tey sàcc bi sàcc ñu jàpp ko dóor ba mu nekk néew allahu akbar yow dan la sàcc nga faat bakka waaye ñu ni kii rey nan ko rey ñu ni kenn du ko rey ñu jàpp ko yóbbu ko atte ko tëj ko ngelaw la yóbbu coow la su ko defee moom mu génnaat defa ci leneen xoolal sunu demee ba sunu réew mi ñu am fitu jàpp nit rey jàpp nit suul muy dund jàpp nit violé rey lu gën a dangereux loolu amul lu ko gën a bon amul te nag ñi ngi ñaan yàlla réew mi ñi ci war a jóg war nañ ci jóg ñi ñaan ñu ñaan ñi fi nek am moyen nanu saraxe waaye tam ñi wax nan wax ñi yore nak dogal yi tam nanu insister ci xéti ñaawteef fi ndax doyna na waar lool te ñi ci loro ñep en général amunu doole amunu doole wala ayaz billah kon mbokk yi loolu yal nañ ci yàlla dimbali kon ñu ñëw ci seen ñaar fukkeelu guddi dañuy def fukki raka juróomi salmal rakka bu ne am benn fatiha ñetti inna anzalnahu fi laylatil qadr waaye tam ñetti xul huwa allahu ahad su ko defee ñu jaamoo ko yàlla ñaan yàlla yiw wi ci aju yàlla nu dal sunu kaw ndax ku ko def yàlla mën na la timbali nga am yoolu euh, euh, ku woor wala ku woor cinquante ans yu tegloo yooyu xéewal ak tam am yu wudul jeex jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu